final point le seba ngook ci diggante Alaaji Ndiaye ak Cheikh Alaaji Ndiaye mbokk yi moo féete à gauche moo féete à droite mbokk yi boo ko Alaaji moo fee moo gën a ñuul Cheikh mbokk moo xaw a yor teint clair bi tuuti mbokk yi dimanche final point ñoo ngi fi ci Joal le 28 mars maa ngi fii too ak Mbacke Mbacke tey noo gisee lamb ji xanaa kontaan am mbégte lamb neex na lool lool lool yéen waa Leewtoo da ngeen di wàññi wala da ngeen di dolliwaat li simple. dañuy dolli da nga def bu neex dolli ñeex. yaa ko gis ngeen El Hadj ak Seex. final poids Seex à droite El Hadj ñoo ngi lewaatoo mbokk yi. ñoo ngi fi ci Joal Fadiouth. alaaji yaa eh, nañu. alaaji jàpp na seex. xañ na ko takoy takk takoy takk lu mu koy def na ko laa lay la eh, alaaji Ndiaye lu def seex. alaaji Ndiaye lu ko def. da koo takk wala ma ci kooku moom joomi. <laughs>